Euh, mbokk yi jërëjëf bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbaleeti na euh, bàyyi jiili Père Birahim ñu ngi leen di nuyu euh, ku ci nekk sa tur ak sant di leen nuyu fii ñu leen di daan nuyoo ci wasaare làmp di am mbégte ak kontaante ci ànd bu rafet bi nga xamante ne ànd ngeen koo wasaare mais ñu ngi leen di ñaan rek képp koo xamante ne suñu mbokk internet la ngay seetaan ay image wasaare ñu ngi lay ñaan nga abonné parce que wolof daf ne doo lay jël ndox la doolay woykat public la wala doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi mënuñoo dem sans yéen abonné leen ñu dem parce que Père wax na ci sànq wax bu am solo Père maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. waaw jërëjëf maa euh, maa ngi nuyu ñoom di wax salaamaaleykum wa rahmatullah di wax rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim eh, maa ngi nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi safoo sa wasaare làmb di ko seetaan di wax di feddali sa kóllëre di feddali sama kóllëre ak yéen nag waaw di leen ñaanal gudd fan ak wér xëy na li may wax am na ñu mu neex xay na tamit am na ñoo xam ne ñu gis-gis waaye man maa ngi tàllal waxo ñëpp rek ku ma mën a yokk xam-xam yi tamit tàllal nañ jox la nga yokk ñu xam-xam parce que yokkaan boo ñu yokkee xam rek yokk nga wasaare parce que wasaare dañoo bëgg mu dem ci kanam a kanam a kanam a dañoo bëgg mu tiim siit yëpp waaw kon tey jii ba tax ñu bugg fii génne loo xam ne li ëllëg si biir boo xoolee ci yeneen site di doo ko gis parce que fii màggetu mbër fii taxaw mm-hmm. te li may wax ni ma ko mën a waxee noonu laa ko man def bien que âge bi dem na mm-hmm. mag laa kon waaye ba teewul action yi war naa wane neen action nii ak nii la ciy génne nii moo la ciy dugal waaye nii la ciy génne mm-hmm. te xale yi nag ku la jëkk ci reeru kan war na ni ñuy reere kon man bi jaar ci làmb ba ñëw ba toog war naa leen wan ne moytu leen lii def leen lii waaye moytu leen lii wax leen ci luy seen njariñ mooy tu loolu luy seen ngaañ looloo tax rek ñu taxaw fii di leen wax di euh, ma ànd ak sama doom jili di kontaan trop ci pour mu taxaw mën a defaraat loolu lool rek la ma leen nuyu di leen sant yéen ñëpp mm-hmm. kon nag mu ngoog Euh, jërëjëf mbokk yi kon noonu lañuy ñëwee ci combat boo xamante ni combat bu mag la woon. Hmm. Euh, bu ñu nee fëgg la xel dem ci Langsar. Hmm. ñu nee fëgg la xel dem ci champion bi nga xamante ni doon na ko ci làmb. Hmm. marqué ay na empreinte bëreeg ay ndaanaan yu nekk. tàkkusaanam ak Garga Mbossé du ngeen ko fàtte. tàkkusaanam ak ki nga xamante ni mooy euh, Ama Baldé du ngeen ko fàtte. mais muy bëreeg xale boo xamante ni doomu rëbës la. muy hmm. double moteur. Hmm. mu nekkoon combat boo xamante ne combat bu neex la fële ci arène nationale. dañ koy indi combat boobu su ko defee père décortiquer combat bi euh, wax ma ci ku ci nekk euh, bi bëreem ak li nga xamante ne noonu la mënee ci làmb. Hmm. père xam nga fëgg la xam nga double moteur. waaw xam naa leen mais fëgg la laa gën a miin. Euh, double moteur tam seetaan naa ko. seetaan naa ko ay combat moo kii kii kii de nu mu tuddati booy bi nekk ci Balla Gaye mooy Boy Niang Boy Niang Maguette Seck. waaw Maguette Seck bëri naa mm. kooku. Mm. waaw bëri na fi ay combat yu métti yoo xam ne gis naa talaam. Mm. mais kii faga laa gën a miin. mais garab nag ci kaw lay fekk rek faga la moo mag euh, double moteur ci làmb. Mm-hmm. moo ko mag ci làmb. dégg su làmb demee ba boole leen ñoom ñaar ñëpp tamit euh, avantage bu rëy la ci ñoom ñaar ñëpp. Mm-hmm. parce que fëgg la daan xale yi mooy wane ne mu ngi ci làmb ji ba nëgë mm-hmm. waaye kii tamit euh, fëgg double moteur. daan ay magam ñoo wane ne ñoo mooy wane ne si na. dëgg la mooy wane ne euh, danañ raam. danañ raam di dox. léegi jóg na taxaw nag waaw fëgale tam pour wane pour wane na moom itamit des na ci làmb ji. Mm-hmm. ah xale yi yéeg wane leen ba lekkat kat bàyyeegu ma leen di ngeen làmb ji mm-hmm. da koy jëf nag. waaye bu fay xale yi bu commencé di ku daan jox sa morom. bu yeboo toog fa muy liggéey jàpp liggéeyam. Mm-hmm. waaw parce que loolu laa gis kon loolu la ñuy indi ci ko père ñu dem nga wan ma fëgg la wan ma ñu dem ci waaw ay ca mbokk yi ñu dem waaw léegi at bi seen diggante fëgg la moo nekk suñu ndeyjoor. moom ngeen moo ngeen ñu xonq moo nekk suñu ndeyjoor. Mm-hmm. Euh, kii moo ngeen moo ngeen bi. mooy double moteur. waaw Double Moteur tam boo ko xoolee xam ne nii xale la boo xam ne bu góorgóorloo ci làmb mhm. di ko jox ak xam war na cee mën a lekk wërsëgam waaw parce que ay jàggul ci làmb mais mu ngi def ay entraînement te di ñëw mhm. waaw muy combat bu am am valeur combat bu neex la woon daal parce que gone mag la mais mageel gi demeewul noonu parce que nee naa la làmb koo bokk koo magul deux ans trois ans koo magewul dix ans yéen bokk carrière di euh, carrière mu ngi commencé tàggoo ci fukki at mhm. koo magee fukki at rek te loolu xajul seen diggante ñoom ñaar ñu dem ñu dem waaw arbitre bi sifflé na bi kay dox na seen diggante génn seen diggante ñoom ñaar kële ngi defar yii bopp bi def ay takk te xam nga seen takkaay yu bari rek xale yi fii dama lay wax benn affaire taxawal tuuti xale yi dama leen di waxal yéen xale yi bëree ak ngi si daan bëri yëpp d'accord xëy na génne wu mais gis nga bëree am na loo xam ne moo gën a efficace lii ñu takk nii takk nii ba sa ndigg fees ba këfalu nii ku nekk takk takk takk ba yow sa bopp li nga def sa yaram rek da mën na laa gérer sax doo bëri uh-huh. lii nag am na lu ko gën ci làmb mooy am xam-xam mën a bëri am condition uh-huh. jàng adversaire bi uh-huh. adversaire bi nag ki la koy jàngal day fekk na kooku mu muy ku mën a bëree parce que ñu bëri tey ñu ngi ubbi ay école di ànd ak ay mbër naan maa ànd ak moom ba pat maa moo ànd ak fekk yow mënoo ko ne nii lañ la daane mënoo ne ko nii la ko xam bu ñu fexewu du yokk seen xam seen bëri day teg day taxaw mais xam-xam da nga koy yokk téere bi soo bëggee bu téere bu jeex nga jàng benn bu yàggee nga bëri xam-xam waaw mais da ngay ne tey moom lañ ko daane suba ko daane gannaaw suba moom lañ ko daane ba këram muy bàyyi làmb kon xam nga ne kooku kala ka nga nekkal jàngalu la dëgg la wala fen ñu dem waaw ñu taxaw fëgala moo ñu wan ginnaaw mu ngay seere ndombam mm-hmm. xam nga yooyu yëpp affaire mbër la seereel ndemb mooy dóor mu daanoog ah. ñaan sa mankaana laak boo ko takkee bu waa ji yaramam seeram day deeg yaramam day deeg ah. boo takkee na boo dóoree mu daanoog yëpp yooyu yëpp ay kii la affaire mbër la rek ah. waaw waaye am na lu ko gën a wax waaw fëgala nag pied droit la waaw waaw kële pied gauche la kooku moom du ci dellu wax naa ne leçon bi ni mu demee pare waaw mais ba tey euh, gis nga fëgala xam nga droite bi ni mu ko tegee dafa wéeru ci kaw bi waaw da waaw posé ko ci gal gis nga su fekkee da ngaa taxawal gis nga su fekkee da ngaa sëgg jëf am pied droit ngay teg da ngay toog ci tànk bi ci ginnaaw tànk bii da koy teg da nga koy fléchir boo ko fléchir moo am doole mais bii da ciy toog yaa ngi dégg mais soo nee nii léegi da ngaa wéeru ci tànk bi ci kanam hmm. sa taxawaay tabaaxatul parce que sa doole yëpp mu ngi ci sa kanam parce que bi nga sëggee nii da ngaa wéeru ci tànk bi hmm. yaa ngi dégg ah. da da ngaa wéeru ci tànk bi. bon bi nga wéeroo ci tànk bi. ni nga wéeroo ci tànk bi. léegi sa doole ci ginnaaw dara nekkatu fa. doole ci kanam rek la nekk. dëgg la moo tax da ngay siggi toog ci tànk bi toog say tànk boo siggee toog nga tànk waaye boo nee nii rek di léewtoo commencé na nii rek doole jëpp ngi ci kanam ñu dem. Feugueleu nag noonu la taxawee. waaw ñu dem. waaw. fëgg la ak double moteur. waaw ñu ngi léewtoo taaw ku nekk de xam nga fii ku ne day xool. parce que fëgg double moteur tamit ci li ma yaakaar ñi ma ànd dañ ko naan moytul nag mbër mu mag ngay bëre. Mhm. mbër moo la mag ci làmb moo la jiit làmb teyel bul yàq sa bëre. loolu tax moom it bu arbitre sifflé du siif bëre bi. Mhm. day tey bëre bi day koy may temps xool ba xam daan la fëgg la indi. bu fekkee ñi ko yor loolu lañ ko loolu lañ ko war a conseillé daal. dëgg booy bëri koo xam ne moo da ngay ànd ak tekk ak teey. Mhm. waaw ba waaw. ay ci ñu dem. Mhm. ah bi parce que euh, kii tamit kii euh, ñoom ñaar ñëpp tamit mhm. euh, gis nga fii tamit taxawal. Mhm. li ma gis ci bëri bi fii. gis nga double moteur mi. léetoo bi mu wàccee garde bi baaxul garde da koy yéegal. aj ko ci kaw waaw toog say ak garde bi ci kaw. bu bii demee bii ñëw bu demee bii ñëw noonu la ñuy mais kenn du bàyyi sa garde nii ci suuf loolu ñoom ñoo ñëpp noonu la ñuy léewtoo waaw waaw ñu dem ñu ngay waaw ay ca ñu ngi Leewtoo dem. waaw. mais ñoom ñaar ku ci ah. nekk xam na ni ku nekkoon ci làmb ji. Hmm. da ngay xam ni Feugeula xeex bi. Hmm. mooy avantage am. waaw te Feugeula xale yi ngay gis nii ñemewuñoo jàkkaarloo moom taxaw moom di xeex. waaw mais xale yi bul bul bul hmm. du xale du xale yëpp a jàkkaar du xale yëpp. am na ci ñoo xam ne ñi xam bu ñu jàkkaarloo moom dañuy xeex. mais am na ci ñoo xam ne bu mu jàkkaarloo moom dañ ko naan moytul da lay nax da lay nax da lay nax mbaru dafa yeewu. ñu loolu la moom it gis dafa téye loxo bi rek daw jëri ko waaw xam nga kon song bi ci boppam parce que un gaucher ak droitier bu lay song si foog nga def déplacement latéral déplacement latéral gauche latéral latéral droite latéral gauche mm-hmm. mépp mu daw si nga déplacé mu daw si nga déplacé pour mën a dem mm-hmm. mais boo jëmee direct rek waa ji lay góolu moo tax bi mu ne bëri dem ci rek waa ji góolu ko ñu daal téye te gis nga. day daal da koy daal téye wala daal di koy bal wala ah. takk bi lay wut. Mm-hmm. xam nga dana wut pour voilà génn rocc na loxoom génn gis nga rocci loxo bii mu rocci loxo ci ngemb bi nii rocci loxo bi mu téye nii ba tey baax na moo déedéet moom euh, euh, fëgga la fi mu téye nii baax na ni mu rocce la crochet mbagg bi nii hmm. xam nga kii bu duumata loxo ma nga ca biir mais fii bu dee côté bii lay mbootee waaw waaw am na possibilité de mboot fi mu hmm. téye nii ci ngembam nii waa ji loxo nii am na nag day tourner dugal encham ci xarante tànk kii loolu mën naa nekk bu fekkee mëne na ko rek waaye nag bis boo koy def de fekk nga mëne ko ñu dem téye na téye bu dëgër gis nga parce que takk bi loolu woon naax bi loolu wut amul gis nga gis nga tëgg na ko voilà gis nga xam nga kon ñëw na gis nga kon ma la wax waaw ah, xool arrière bu fekkee mbootkat la foofu mais mais mais delloo foofu gis nga fii nag gis nga fii ah. gis nga fii mu tëgg mboot xam nga maa ngi naan téye na téye na njàmbal jox na wet gi ah. mais bu fekkee mbootkat la am na mboot mais mboot bi mënoon naa baax mais da koo toggul comprendre nga li la mboot voilà gis nga mboot mi mu dugg nii voilà ans bee duggul moo tax xam nga fii lu ko waral nii lu waral nii jiili ah. c'est que mboot mi da koo toggul mooy keroog li ñu doon wax kon fëgg la euh, ndigg li waaw dafa war nekk ci jumbaxu. waaye ah, waaye itam jeex na mu jeex na. gis nga ko gis nga loolu moo tax may da koo toggul. Uh-huh. dafa toggul prise bi. Uh-huh. maanaam parce que prise boo koy def da nga koy togg ba mu ñor. surtout nga ñeme ko déggoo dama ne fi mu téye ci ngemb li téye bi mu amee ngemb ba pare. ba téye waa ji def na noonu. dafa waroon déplacer de gauche à droite xool ko ba tànk yi ñëw ba nga jege nga xam da koy déplacer maanaam togg prise bi mooy da maanaam da koy préparer dafa waroon préparer prise bi bu ko préparer woon mboot bi ci biir bi lay toog ñu dem gis nga walla gis nga mboot wala gis nga mbootu jolol bi ah. gis nga ko dañ mboot dem gis nga fii takk na ko ah, waaw waaw léegi nag gis nga duba xam nga wër na ko ah. léegi parce que ko koo suruxal waaw ñu dem gis nga suruxal bii nag mooy danger bi léegi parce que xam nga loolu lu tax mu surux ah. léegi nii mu mboote moo baaxul voilà xoolal gis nga doo ah. bii nag xam nga teel teel fii teel fii teel fii teel fii xam nga fii ñaare fii voilà ñëwatu voilà gis nga teel ma foofu ah, teel teel demal demal demal moo naat la moo wax la fii xam-xam bu rëy fii la ma wax la fii voilà gis nga jiiri léegi nag yow tëgg nga mboot tëgg nga mboot mboot bi réussirul mm-hmm. da ngaa war a génn assurer soo taxawaay waaw prise soo ko tëggee mu dem bu demee réussir baax na mais bu réussirul da ngay assuré waat sa taxawaay loolu nag am njàng la xam-xam bu rëy koy def loolu ku mën a bëri dëkk koy def ku am xam-xam dëkk koy def tëgg naa la benn prise soit ipon net lay doon wala wala bu bu yàggee bu continuer baaxul maay daanu damay génnaat nag mhm. waaw damay génnaat nag assuré sama taxawaay loolu nag moo manqué ak fëgale fii ba ñu def ko lii xam nga li ku la gën a féete ndaw ba pare ëppoo ko doole wala mu ëpp a doole def la nii dali suruxal la nii xam nga ne musiba day am jeex na kay day jeex waaw ah, parce que sërëxal bi xamul ko lu ko lu ko indi mm-hmm. mboot bi mu doon mboota baaxul mm-hmm. boot bi mu doon def bi mu amee ngemb li ba dugal ba mu dëgër uh-huh. dafa waroon déplacé ba tànk yi jóg mu dugal en comme li nga wax fii tegu ci naq bi loolu nag xam nga lu koy may fléchir bi fléchir tànk yi parce que mënul taxaw rek xëcc ko teg ci bi mm-hmm. déedéet da ngay togg togg te dootu loxo bale mu defee ne moom ngay jéem a jàpp nga di ko jéem a nax manipuler ko gauche ak droite di ko manipuler gauche ak droite xoolal ba fexe ba déplacer ko ba xoolal ba tànk ba jóg benn bi ci kanam taxaw ba ba tànk ba la gis ne taxawul nga doon tëgg mbot parce que ay ca père xool fu muy mujj. waaw père fii ko wëree ndomba. waaw lan moo nekkoon avantage bi fële fii moom ñaan ci yàlla jéem a rëcc rek. jéem a saako yaa ngi ko mais saako yi wala mu raam dugg ci saako yi. kooku it xel la. parce que waaw waaw ah yow boo xoolee ba nga xam ne jekk nga pour daanu rek. Hmm. yow fi ne kay xam nga ne lii kay lii kay lii kay li xale yi wax penalty penalty la. lii kay lii kay wax nii dama ne boo fi rëccee du mën a bëri wërsëg la. Uh-huh. fii uh-huh. léegi leen nam fuluf mën a mën a may saas comme saako yi jigéen nag mu sigi xool saako raam daw saako yi. ñu àtte leen uh-huh. te foofu xam nga seen waru ko jox avertissement. Hmm. waaw déedéet du yoon parce que seen règlement yu bon yi rek la. réew ñoo tax jóg waaye nit mbër yàgg naa jekkari dem ci làng gi ñu boot la nga dem ci làng ñu àttee bu ñu dellu siwaatee nga ne ah li ma defoon erreur bii pour mu dal ma kat dinaa fexe ba bii du ma dal loolu mooy xam-xam ni def naa bii erreur daal nañ waaye bii yoon dellu nañ yàlla may na ma rëcc ma daal ma bu ñu dellu doo fa ëgg mukk ci àdda duñ fa àgg parce yaakaar naa ne bu ñu tàqale woon ba dellu siwaat ci biir géew bi dégg que fii waaw loolu damoon saako yi rek moo doon yoon waaw ah carte d'identité kay bu ko defee jeex na ñaar ñaari om yi bu ñu demee ñaari loxo yi kay mm. jeex na te fii tamit bu bu doon ci biir géew bi ah. yoon da ko fee may pour mu dóor loolu war nañ koo dindi mm-hmm. nit nan nga koy pëddal pare war ko ginnaaw taaw ñu leen dóoral fu la neex ah, lu dul ci loos wi des fois nga sam nga jot wër ma moo xamante ne eh père mbër moom dafay dëgër kooku faw dóor daa xamul fi muy dóor mm-hmm. kay dóor dafa xamul fi muy dóor parce que nit dafa bari point sensible. doomu aadama dafa am foo xam ne bu ñu waxuma dóor waaye bu ñu fa mun naa rek ngay ko mun na rek. mooy menton <coughs> baal ma tant tympan kaw wala tympan suuf wala bët wala dara fu ñu la fi dóor. ak xale bu ndaw bu tuuti bu cinq ans bu la dóoroon ci bët léegi nga xool. dóoree nga nelaw dëgg la. c'est que war di dóor. daa tàn daa tàn daa dàqul fa mu war a dóor dafaa dóorul. waaye point sensible yi ne ci doomu aadama nga xam ne moo commencé ci baat bi ni jëm kaw fu ñu la fa nga dem teer man nga ñàkk sa bakkan sax. moo tax ñuy wër dañuy yàkkamte yàkkamte ba dañu xam fu ñu war a dóor moo tax waaw mais loolu waroon nañu xool ne ku wër si nit ndombo ba mu dóor deux une minute daanoo ko dafa nañ war a at combat bi taxawaat la di waat leen ci géew bi. waaw ah, mais père loolu waaw mais loolu waxtaan la. ñu jox ci la wër ndomba ñu jox ko victoire sax mu tane. Ah, waaw ba tey wala wala boog ñu ne boog ñu wër la ndomba. nga waa ji man man am 2 minutes wala 3 minutes nga xam ne mënoo ko cee daan mu àggale ñu jox ko victoire. waaye mooy ma waaye nag amoo droit dóor. amoo dóor jéem la daan waaye amoo droit dóor. fekk taxawloo loolu itam xam naa ne Birame maa ngi la koy interpellé en tant que président CNG bees bi xëy yooyu di nga ci bàyyi xel. parce làmb ji a defaraat bari na. maa li ngeen ci war a bari na. Mm-hmm. règlement yu bon yi ci nekk yëpp dafa bari te dara baaxu ci dara avancé wu làmb du may day arrière làmb. Mm-hmm. ëpp ni doole pousse ko mu génn benn yoon ñaar yoon ñett ñu ne téyel sa bopp. Mm-hmm. donc kooku loolu koy balaa caa nga toog sa kër xool ko télé ah loolu dafay yàq làmb làmb li koy defar dañu indiwaat taar bi tama yi bàkk yi jàq xale yi ñu tàkk leen ngemb takk série yi bàkku yi sàllar ñu ko bi fecc bi animation boobu yooyu moo doon animé làmb waaw yor 10 litres di wis waaw waaw voilà waaw yooyu yëpp xam nga làmb yooyu yëpp tam ay xew-xew la ci woon ah, am na ci yoo xam ne aar la ci biir aar la ci biir hmm. mu ñaa loolu day yàqum ndox ak day yàq ndox mi rek ndox mi ñuy yàq ak naan ndox mi ñu yàq yow li seen <laughs> yow fayoo ndox fayaale woo ndox ki koy fay kay moo war a man a ne ko moytu yàqam ndox ah mbër buñ fay quatre-vingts millions waaye dama ne ndox valeur deux cent mille jaaduwul waaye jaaduwul yàqaay sax jaaduwul <laughs> waaye loolu moom yow da yow da ngaa xoromu rek da ngaa xoromu di wax waaye dama ne jaaduwul yàq la ma ne aar bi nekk nañ buñ ko raaralee bu ñu réeralee aar bi yàq nañ ñu làmb dafa am loo xam ne lii aar la bëri la ci aar bi daf cee bokk waa maanaam culture bi ñu amoon dégg nga bu ñu xool ko dindi ba mu set li ci rafet lépp nañ ko téye mais li ci ñaawoon na nga xam ne ay wéq ak ay matt yooyu amatul te ñooñu loolu fekke wuñ ko sax ñun ak ñu ñoom mbéygee ñu ñu mag sax ak ñoom Robert ñu sax fekke wuñu matt ak wéq te ñoom Jéeri Saaj ñoom Medoune Saaj ñooñu daan wéq ak matt ak yooyu amoon yooyu dindi nañ ko yàgg na moo tax bu ma déggee nit naan woy diw dana arbitre yor at yor jaasi waaye bàyyi leen waxte yàlla wax bu ngeen di nit buy wax day xam ne yàlla ko tiim tiimte ñi ko mag deewuñu ba jeex ñi mu mag deewuñu ba jeex ñi ko jur deewuñu ba jeex ñi mu maaseel deewuñu ba jeex kon tey jii man dama doon arbitre daaw ñu yor jaasi jaasi man dégg naa loolu ay waaye xam nga nit toog ci télé di wax wala toog ci rajo sociaux yi di wax lu la neex nga xam ne kenn du la wedd rek ngay ngay wax say yoo xam ne dara ay kàcc la dara du ci dëgg loolu rafetul man bëri naa quarante ans ci làmb laa wax hmm. mosuma gis laa wax seetaan ñaari mbër arbitre yor jaasi di arbitré loolu loolu xel la koo nanguwul sax mais yat nag yat sax amul yar la daan yor yar yar boobu moom nga daan xàlle bu nit ñi demee sa kaw nga dóor yar bi nit ñi xàll mu yaatu loolu yàgg na de nga xàll mu yaatu léegi nag wala boog dégg nga li ma la bu at bi kii pare nga ne pare nga dóor ko ci seen diggante loolu waaye ba civil amee dafa deñ ba civil amee yooyu yëpp daa mujj deñ kon jaasi moom bu ko kenn wax. waaye waaye loolu sax dañ ko sax sax ko tax may may may ñaan kilifa yi nga xam ne ñuy dégg ñuy wax lu dul dëgg. Hmm. bu leen di répété moo yooyu. Hmm. boo déggee nit wax loo xam ne la mu wax dara amu ci te yow tegoo ci ba te gisoo kenn ko daal bul koy répété boo ko répété répété wu fen la te kilifa du répété wu fen mm-hmm. jërëjëf ngeen baal maax maa ngi jégalu ngeen baal maax uh-huh. ah yii di léeg moo tax moom sama yaram day tàng mm-hmm. dégg nga léeg moo tax ma bëgg wàññi baat bi sax léeg-léeg ma wàññi baat bi sax ba kàggu <laughs> kàggu naan ma tey dangaa sawar dé <laughs> waaye damaa bëgg léeg-léeg yar samay kàddu rek yar sama làmmiñ <laughs> boo jee wax naa ko waaye du dara maa ngi baal wax ñëpp waaw jërëjëf Père Birahim hmm. xam nga nag dama ko bëgg su ma ah. toogee moom des fois bu xawee sedd dama koy bëgg a yëngal ah. des fois ñuy waxtaan mais jërëjëf Père ma lay jaajëfalaat bu baax waaw ah, jërëjëf hmm. loolu mooy émission bi sax émission bi pour yokkante xam-xam la hmm. yokk comme l'affaire làmb la ñuy wax te ñun ci la ñu màgg ci la ñu gore ci la ñu def lépp tekkiwul na ñoo fi gën a ëpp xam-xam nag tekkiwul dañ fee xam lu kenn xamul déedéet ñu ma ëpp xam-xam ak yi may seetaan te ni dégg nga ñu ma gën a jaar ñu di wax loo xam ne xëy na man xaw ma ko sax. Hmm. waaw kon tey jii man tamit suñu toogee dinaa wax sama sama xam-xam fa mu toll. Hmm, waaw ku ci xam leen loo ñu man a yokkit wesaare tal na la loxo. wasaare moom ñëpp la fi nekkal. Hmm. monde bi yëpp la fi nekkal. te it fàllu bul fàtte abonné yi nga waxoon ne gaa yi nañ dugg abonné bi. yaa ngi naan ma ndax sa gaa yëpp ñu abonné ci seen bi kon nag fàllu tàllal la joxoy ñëw. maa ngi nuyu Pape Konaté nag. Pape Konaté di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Moustapha Guèye président waaw biram ndaw dooy yow doo ko fàtte sama jaw waaw mbooj Sonatel sunu waa ji gëj dañ koo dégg moom it dégg nga Fallou Diop dégg nga maa ngi nuyu ñëpp mm-hmm. waaw wasaare nag bàyyiwuma kenn nuyu naa bi jox naa ko Pape Konaté mu mm-hmm. joxal ma ko ñëpp Serigne Kane fàttewuma la maa ngi lay nuyu les ziar mm-hmm. Malal Ndiaye ñoom ñëpp xale yooyu baax ba bëgg a dee Modou Mbéri Sey mooy Boy Sey waaw moom it chaque jour bu xëyee jàngal ñu surtout Yaasin jàngal ñu mulki